alhamdulillahi alladi awjada fa rahima wa amara fa jaasa wa waada fa awfa wa salaatuhu wa salaamuhu ala munqidi albashariyati walbashar sayidina wa maulana muhammadin man ruuxuhu qiblatu larwaax wa jismuhu kaabatu lashbaax wa ala alihi wa saxaabatihi dawi lislaax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 jëmee ko ci jullit yëpp fu ñu mun di dëkk ci juróomi continent yi ci àdduna bi moo xam ñu dëkk Amérique chimal wala ñi dëkk Amérique janub wala suñu mbokk yu tedd ya dëkk Asie wala ñu dëkk Europe wala ñu nekk Afrique ji nga xam ne foofu laa leen joxe nuyoo bi foofu tamit laa leen yónnee ndokkeel gi ndokkeel leen ci bis bu tedd bu màgg bu sell bi di iidul adha al mubaarak di feet gu yàlla boole jullit ñépp ñu bokk ko yàlla baaxoo bu ñu santaanee ab santaaneem bu ñu ko santee rek bañ jëfandikoo santaane ba dafay kontaan ci ñun ba bay ñu feet moo tax julli lañu ñu njëkk a sant ñi taxawee ko taxawal ko ci semaine bi yëpp li ko doree samdi dimanche altine talaata àllarba ba alxames sama borom bég ci ñiñ taxawee julli ak niñ ko taxawalee ak niñ ko wattoo ne may naa leen àjjuma muy seen feet seet bokk na ci li koy rafetal sañse sañse leen yére yu weex donte màgget na feet bokk na ci li koy taaral lekk naan mu ne lekk leen naan leen ca bis ba moo tax bi mu fekkee soxnaam sa Juwayriyatu muy Zeynabu mu xoor bisu àjjuma yonent bi ne ko ngaa xooroon démb mu ne ko déedéet ngaa fas yéenee woor suba mu ne ko déedéet mu ne ko kon dogal moo tax boo demee ci fiqhu sunna saydu saabiq dafay wax ne tànn ajjuma moom kenn di ko xoor bëgg koo def istinaanan dañ koo sib waaye boo ko defoon na ngir jublu ci jaamu yàlla rek yokk sa yiw ba tey baax na waaye nanga nga yëg ne daal ajjuma mooy feetu julli mii ci julli feet nag li koy taaral mooy lekk mooy naan mooy sañse ñu jàllale bi ko bàyyee ca feet googa mu sant ñu koor bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee fi fajar xar ba jant sox ñaar fukki fan ak juróom-ñeent la gën a néew fanweeri fan la gën a bari sama borom bég ci ñu taxawee koor gi ak niñ ko taxawalee mu ne may naa leen bisab lëmm nag ngeen feetu ko bis bi mooy idul fitri li xoor di dagan dagan xoor bis booba xaram na lekk leen ci naan leen ci na ngeen ci sañse yére yu bees doonte ñuul na na ngeen baaluwante àq ci seeni diggante yi moo tax kon idul fitri di korite mooy feeti jullit ñi ci koor ñi bàyyee ko ca feet ga rek mu ubbi beneen escalier ñi war caa yéeg muy beneen ascenseur bu ñu war a yéeg jëm ca kaw muy alxajju muy jaamu yàlla gu laaj ñaq laaj ñuqi laaj ñukki ñukki ñi taxawee ko ca xarmal ga taxawal ko ca wër kaaba ga tawaaful qudóom taxawal ko ca dox safa marwa dem minan bàyyi ko fa dem arafa départ ñëwaat fa sànni fa suñu juróom ñaari xeer yi jàllar bi ko nag tey ba ñu xëyee rek ñu def tawaaful ifaada sama borom ne bët naa ci yéen ci aj gi ni ngeen ko taxawalee ak ni ngeen ko taxawoo du ma yem ci benn fan di leen koy may ci feet waaye ñetti fan laa leen di may muy bisu tey bii a ah, di iidul adha al mubaarak ak ñaari fan yi ko méng yëpp may naa leen ko ngeen feetu ko bisu tey bi lu nit mën a mën a woor xaraam na nga di ko woor waaye bisu lekk la bisu naan la bisu sañse la bisu tudd yàlla la te gis nga feet yàlla da ko mooñaale ak nit ki nit dafa sopp feet ndax xew-xew yi xew yépp feetu ko moo mën a béelal xew-xew ba xew-xew bu la yàlla mën a may moo xam victoire la moo xam defet la boo bëggee mu béel feetu ko feet rek moo mën a béelal xew-xew yi moo tax doomu aadama nekk di kuñ mooñaale ak bëgg feet dippi ci suñ maam yonentu yàlla noox di abul basharu thani ba ko yàlla mayee victoire bu day nii gaalam ga teer ca doj wala di juudiyu nitam ña ko weddi woon ñëpp alku ña ko gëmoon ñépp yàlla sowe leen muy bisu victoire bu mag ci diine di bisu victoire bu mag ci ñoom diine moo taxoon nitam na jàppoon bisu diggaalam gi teer tolloog yow moo asura di ko xoor moom yonentu yàlla noox moo jiite woon koor ga tamit di ko delloo yàlla njukkal ci victoire bu mag bi seyduna ibrahim ñëw yàlla toroxal noonam bi ko bëggoon a toroxal ci bëgg ko lakk ca safara wa yàlla sowee ko ci qul naa yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim bis booba bu mosaana jot bu del si waataan Ibrahima dafa ko daan feetu ak nitam ña ngir defet bu rëy bi ci Namruuf jële ak victoire bu màgg bi ci yonent yàlla Ibrahima jële ak ñoñam ña ak lislaam victoire bu mag buñ ci am Seyduna Muusa ñëw yàlla alagal ko noonam bu bon booba di Firawna alag banu Israil bu ko defee tamit sowe Seyduna Muusa ak ña ko gëmoon jox leen victoire bu mag bis booba bu Musaa na dellu si Muusa da ko daan feetu yahood yi di ko feetu ba léegi sax ñu ngi koy continuer di ko feetu Seyduna Isaa ñëw sama borom sant ko mu ñaan ko mu war a wàccee taabalu ñam bu def juróom-ñaari jën yu amul yax boole ko juróom-ñaari mburu war a bàyyi ko ci asamaan gannaaw bam ne allahumma rabbana anzil alayna maidatan min alsamaai min alsamaai takun lana iidan li awalina wa axirina waayatan minka warsuquna wa anta xayru rasiqin bis booba dimanche la tombe woon nag saa yu mosaan a dellu si ca at ma ca weer ba ca bis ba nasaraan yi dañ ko daan feetu ngir victoire bu rëy biñ ci amee muy xéewal gu màgg gu rëy googu nga xam ne ku ci mosaana lekk boo ñàkkee woomal ku sa moca ku sa mosaana lekk boo feebaree wér ku ci mosaana lekk boo bëggee falu-falu ku si mosaana lekk boo bëggee am soxna wala nga bëgg am jëkkër wala nga am place buñ lay liggéeyee booy liggéeyee nga am ko moom daal dafa mel ni sam-samu yonantu yàlla muhammad bi rek ci zam-sam li ma suriba wala mu mel ni yaasin li ma ala waaye jën yooya tamit loo ca lekk xéene ko ca rek am ko ca gis nga ko tamit yonantu bi ba muy ñëw fekk na yaaram yi ñoo ëpp feet ci xeet ci xeeti doom aadama yëpp ñoo ci ëpp feet yéen cay mën a feetu ñu koy feetu xataa yaaram yi ñoo ëpp sax yahuud yi feet te yahuud yi ak seen bopp rek am nañu treize feet fukki feet ak ñett lañ am ci at bi yoo xam ne feetu international la boo ubbee biibul bi fekk ko ci ñu koy dundal feet yooya nag tabaarakallaahu bari na ca yu siiw lool nasaraan yi ñëw ñoom tamit am nañ juróomi feet ci at bi yañ ca gën a fonk mooy feetu juddoog yonentu yàlla saa tolloog ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre muy vingt 24 waaye tamit ak 31 décembre muy bisu ngénte ga ak yu mel noona bu jotaan dañ koy feet doonte feet guñ am koo xam ne dafa am ci ñu ko nangoo ñoom ba mel ni ñoo ko moom waaye ànd ak loolu lépp du yonantu bi ñëwee madinatul munawara fekk yahood yi fonk seen fukki feet yi ak ñett nasaraan yi fonk seen juróomi feet yi yaaram yi fonk seen feet yi nga xam ne kenn mënu koo lim mu ne leen yàlla wattee na leen ñaari bis ci feet yoo xam ne dana doy walis seen feet yépp jël leen ko ngeen dundal ko tabaayi feet ya ngeen nekkoon muy feetu iidul fitri di feetu korite ak feetu bis bu tedd bi tey di iidul adhal mubaarak bii di feetu jullit ñi ci koor bii di feetu jullit ñi ci aj yonent bi ñaari feet yi nag lañu bàyyee bu ko defee tamit buxaari yu indi hadis bi ak muslim mu sant jullit ñi ñaari fan yi buñ dellusiwaatee ci at mi nañ ko feetu nañ ko màggal waaye euh, feet yi ma la wax yëpp liñ wutee ak feetu lislaam mboolem feet gu nit ki yëkkati te fekk lislaam gu ngewut ko rek feetu dundal bakkan la feetu màmmal bakkan la ci melokaanu bakkan wi gën a bon ci xeeti bakkan yi di nafsul ammaaratu bi suu bi yonante yàlla yusufa waxoon ne wa ma ubari'u nafsiya lu tax mu ne inna nafsa la amaaratu bisu xeeti bakkan yëpp boobaa ci gën a bon ji nga feet bu ko lislaam dalalul rek borom dafay feetuwu ci fecc dafay feetuwu ci euh, tëgg dafay feetuwu ci naan sàngara dafay feetuwu timit ci ak mooy yàlla yonent bi nag andil ñu ñaari feet yum jëlee ci boromam ne feet la yoo xam ne bakkan mën na koo feetu waaye en même temps seen rooxu gi mën na koo feetu waale moom ànd ànd ceeg bakkan bi te du yàq dara jël leen bakkan jox ko cëram waaye jël leen rooxu tamit ci bis bii ngeen jox ko cëram bakkan ba nag bakkan bi ngeen ci mën a jox cër mooy bakkanu an nafsul mutma na ndax boobu la ngeen koy njëkk a joxee cër bu ngeen xëyee rek ba sangu sangu mu mel ni sangum janaba te mooy sangum julleeg iid bu ngeen ca bàyyee ko rek commencé leen tudd yàlla te gis nga kat nafsul mutmainna ba ngeen duggee ci feet gi moom moo ko mën a waale ndax ala bi zikrillahi tatma'innul qulub nga commencé ci allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ba kan jël cëram ci tudd yàlla ci nafsul mutmainna nga continuer yaag tudd yàlla ga ba yegg ca julleekaay ba su fekkee ba yàlla nekkul jumaa du jàkka continuer tudd yàlla ga feeg ba ilimaan bi ñëwee bu ilimaan ñëwee nga ànd ak moom ci julli ñaari rakkaaya jàllar bi ku déglu xutba ga boo ca bàyyeekoo nga door a dem ren di sa tabaski mi yooyu yëpp yaa ngi sedd nafsul mutmainna te nafsul mutmainna lu mu am ruuxu am ca cër ndax ci eh, jaamu yàlla moom moom rek moo mën a moo mën a alimenté roox moo tax nga sedd nga sedd rooxu ci tudd yàlla ga ni ko seddee bakkan an nafsul mutmainna waaye nga nga nga nga ci jéegu ngay jéegu jëm ca julleekaay ba waaye nga sédd rooxu bi nga yegsee su fekkee jàkka la mbaa muy jumaa nga julli ñaari rakkaat nuyoo ko jàkka ji muy tahiyatul masjid su fekkee bayal la nga continuer tudd yàlla amul tahiyatul masjid ba ilimaan ñëw bu ilimaan gi ñëwee nga sédd rooxu ci julli ñaari rakkaaya jël timit sedd bakkan baak nopp yaak cër ya ci déglu xutba ga ak taataan ko ba nga ca bàyyee ko nga séddal rooxu ci reen di sa tabaski mii moo tax yàlla ne fa salli li rabbika mais wan xar mais wan xar li rabbika yooyu yëpp feet la goo xam ne rooxu ma ngi cay yëg ma ngi cay yëg ma ngi cay yëg bokkom ca julli ga mëncëg yëg boppam tamit ci rendi gi nga rendi sa tabaski mi te yëg ne tabaski mi li yàpp wuy bari bari lan yanaala llaaha laxumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum loolu laa ci loolu lañ ci yëgee waaye kon feet ak lislaam dafa wut ak feetu gu dul feet ak lislaam feetu gu nit feetu te fekk lislaam dalalu ko rek bakkan tabaarakallaahu moo koy feetu waaye rooxu moom du bokk ca feet ga waaye nag feet ak lislaam moom rooxu ak bakkan bi nga xam ne moo amee melokaanoo nafsul mutmainna ñoom ñaar ñëpp ñooy bokk feetu feetu ga gis nga bakkan ba feetu na ko ci sañse yëre yu yëre yu rafet yu bees doonte ñuul na feetu na ko ci xéewlu ci lekk yàpp wa tabaarakallaahu waaye tamit feetu na ko ci tuuroo parfum ba ak sañse ci nam gën a rafete moo tax tabaski am na xukumu waaye tabaski am na ay xikam xukumu ba mooy ci Malik dafa ne sunnatu mu akkada la bokk na ci juróomi sunna yi ëpp doole moom julli googu di julleeg Iidul Adhal Mubaarak moom ak julleeg witar ak julleeg korite ak julleeg muurug jant ak julleeg baaw naan ñooy juróomi sunna yi ëpp doole ci sunna yi ñu yonantu bi indil ñu leen di tuddee as sunnanul mu akkadatu kon loolu mooy xukumu bi moo jëlee ci Abu Hanifa moom dafa ne waajibatu la julli gi tabaarakallaahu dafa nekk di lu war ak tabaski gi moom nag lu war ci mazhabam mooy loo xam ne yëggul ci farata waaye passé na sunna noonu la ko Abu Hanifa gisee kon wax naa la xukum bi mais am na ay xikam yu bari xikam ya bokk na ca mën a maanaam sant yàlla ci xéewal gu réy gi ñu may ci bis bi xéewal ak mën a jël gàtt rendi ko mu am ndey am baay am ay bàjjan am nijaay am ay doom comme ni ko amee nga sañ koo rendi te kenn du la fa fekk ne da ngaa tooñ loolu ki la ko may autorisé la ca loola defal na la xéewal gu rëy rëy waaye bokk na ca xikam ya yàlla sant nañu ko ngir bëgg ñu yaatal njaboot ci bis bi fukaraaw yeeg masaakin yeeg ñëpp yëg xéewal ak bis bi ba nga xam ne kenn du ca wër dem di yàlla waa ni mbaa ngay nekk di ku sonn waaye bis la boo xam ne yàlla indil nañu ko mu bokk ci xikam ya ñi dundal ci sunna ci suñ maam ibrahim alayhi salaam waaye bis la boo xam ne tamit dafa ñuy wan maanaam fës rafetal ak yàlla jëmee ci ay jaamam kon yii lenn la ci xikam ya gannaaw bi ma la waxee xukumu ba ci bis bi feet gi nag li muy rëy rëy ñett rekk ñoo ko saña a feetu te ñett rekk la ko yàlla feetloo waaye ñett ñii ku ci xamut melokaanoo ñett yii waroo feetu bis bu màgg bii di Iidul Adhal Mubaarak ku ko war a feetu bàyyi ju jubóog boromam ni Seydunaa Ibrahima jubóo woon ak boromam waaye bàyyi joo xam ne am na baat timit ci këram ba bu waxee baatam kenn du ko xotti la santaane rek mooy am li mu tere tamit moom rek la ñuy bàyyi waaye boroom kër goo amul kër ci amul baat ci këram kooku bokkul ci feetu tabaski gi boroom kër goo xam ne tamit jubóowut ak boroomam boobu tamit bokkul ci feet gi ñaareel bi doom ju jubóog waajuram ba waajuram gënal ko boppam ba lépp lu ko waajuram sant rek mu ne ko damay wax la Ismaayila waxoon yaa abati faal maa tu'maru sa tajiduni insha allahu min assabirin waaye tamit jigéen gu nangul boroom këram ba lum ko sant mu def ko lu ko tere mu bàyyi ko ba bu dëkk bi naqaree ñi dëkkoon ca ville ba mu ne ko nañ wàññi yoon dem ci baaliye bi mu ne ko nijaay dama lay topp nañ génn fi dem ca euh, dëkk ya yi nekk ci euh, kaw gi mu ne ko nijaay dama lay topp du fa nekk jàmbat naan ko fi ma indi amul courant amul ndox amul yoon kër gi karalewuñ ko kër gi dafa ruqee déeréet moom daal day wax nijaayam ne ko nijaay foo dee ma dee fa loolu mooy naa Haajara kon bépp jigéen gu amewul melokaanu Haajara wallahi bokkoo ci feetu tabaski gu màgg gii bépp doom ju amewut melokaanoo suñ maam Ismaayil bokkoo ci feet gii waaye bépp baay bu amee hut melokaanoo sayduna ibrahim bokkoo ci feet gi baay ju bëgg amee melokaanoo ibrahim ñaari melokaan rekk la mooy fexe ba am baat ci sa kër gi waaye boroom kër gu ne léng luñ la wax nga ne taxawal ma laaj madam fii kat lu fi neex madam moo fiy dox yow da ngay wax sa baat ba pare madam ñëw dindi ko bokkoo ci feet gi ndax gis nga Ibrahima bi mu yëkkatee kàddoom ne ko sama doom inni ara fil manaami inni asbahuka doom nga dindil ko def ko ne yaa abati faal maa tuumaru ba mu ne sa yow sama soxna sama doom ji ma am ak yow sama boroom digal na ma maray ko dafa ne ko loo ma ciy tàggu yaa ko hilif hilif ma li nga bëgg rek mooy am waaye yow su fekkee sa kër gii nga tabax di joxe dépense di fay courant di fay ndox mi lu nekk mu gàccewu ci sa los wi waaye amoo fa benn kàddu du sa du ci sa doom du ci sa soxna bokkoo ci feet bi te boroom kër bu bëggee am kàddu ci këram dafay fexe ba jubóog boromam yàlla ko am fula la boo jubóog moom rek moom moomam moo lay dimbale ba nga mën a jubóog sa njaboot waaye boo jubóowut ak sa sa borom ci def santaaneem yi bàyyi tereem yi mënoo koo fexe mënoo muus a muus ba jubóog sa soxna mënoo muus a muus muus ba jubóog say doom comme lànkal nga sa borom ñi la waroon a déggal tamit yàlla moo leen ni roof tamit ñi lànkal la ci diggante soxna yeeg doom yi nga ne léng te amoo benn baat ki sa kër gi lu neex sa soxna neex say doom moo fay dox léeg-léeg nga gis lu jaaduwut te mënoo caa wax dara boo waxee sax du jariñ yonentu bañ na ko ba tuddee rajulu duyuus mooy góor ak yambar ba muy lim ñiy dem safara boole na ca góor ak yambar mooy góor goo xam ne dañuy def lu bon ci biir këram te mënu caa dindi dara mu ngi bon naa am sax kurus ku gudd ak kaamil bu mag waaye amul benn baat kon nag kër li muy rëy rëy boroom kër gi bëggul lu dul baat ba mu ngi mel ni feeskat gàtt li gàtt bi di rëy rëy baat ba rek la soxla damaa foo nag liñ xeeñ feeskatu gàtt yi baat ya moo tax tamit borom kër yu bari yàlla xeeñ leen seen baat ya ca biir kër ya fu mel ni ji jamono bokk na ci feebar bi gën a garaaw corona bi ñiy séentu naan ñi ci troisième vague bi billaahi bu ko gën a garaaw mooy kilifa gu amul baat ci këram loolu li mu mën a yàq kenn mënu ko wax ndax corona bi li jàngoro ji rëy rëy médecins yi ñu ngi koy faj léeg-léeg nga dégg bët bu se ne nangami malaat lañ amoon nangam wér nañ ca ku leen faj médecin yi waaye nag jàngoro jàngoroy ñàkk baat ci sa biir kër kooku benn médecin mënu koo faj amul benn pharmacien buy jaay garab ya kon nag loolu nañ ci bàyyi xel ku bëgg a bokk ci feet gi di boroom kër daal na fexe ba déggoog sa borom ba lum la sant nga nekk ca lum la tere nga bàyyi ko ba mel ni Ibrahim fu ko yàlla tuddee dafay wax ne wa Ibrahima alladi wafa loolu kon jar na bàyyi xel waaye yow soxna si nekk fii ak sa borom kël la jël ko witt bu ne benn baat nga ne ñaar bu ne ñaar nga ne fukk ñetti baat ñeent nga tàcc ko saaga ko wax ko wax ju bon ba xamul te mun yaa ngi nii xamul num lay def bu la fasee sax doo génn kër gi naqar rek lay mën a dund kooku dee boo nekkee ci sa lakku yi borom kër gi ci tabaski bi di di lakk tamit bokkoo ci tabaski ba ndax kat xendoo lakk fanaanoo lakkal sa jëkkër kooku yàlla bëggut ko te bëri na jigéen gu yendoo lakk te billaahi bu guddi tey mu lakkal boroom këram kon yéen jigéen ñooñu nga xam ne fu ngeen toll yéen a ngi lakkal seen borom kër yi wallaahi warul leen a nekk ca lakk ya ndax bokku leen ci tabaski gi waaye da ngeen war a mel ni saydatuna Haajara gis nga fa mu dëkkoon tabaarakallaahu ak sayduna Ibrahim ba mu demee ba war a tuxu dafa ne ko nañ dem foo ma yóbbu ma dem mu dem dëkkal ko ci aw xuur boo xam ne nanguwul sax mbay nanguwul gàncax place ba amul courant amul ndox amul dépense bu doy mu bàyyi kook dara ne ko maa ngi dem seeti beneen soxna ba mu laxasu ko nijaay koo may bàyyee mu ne ko yàlla mu ne ko demal sama borom moomu nga may bàyyee moom la moom ma du ma sànk gis nga ko de fa la nekk fa la nekk fa nekk ba mu nangoo dëju fi ko boroom këram dëj wallaahi yàlla dëjal na ko fa doom jumat boroom këram ndonu muy sayduna ismail dëjal na ko fa xéewal gu day ni sam-sam nga xam ne tey mooy forage boo xam ne yàllaa ngi ko bënnee ci tànki doomam mu ñëw tiit ba xamul lu muy wax mu ne ko sam-sam dalal dal googa mu nangu mu ne ko woon dalal moo waral ruwaat fahad bi mu ñëwee rahmatullahi alayhi bëggoon a branché dëkk bi yëpp ñuy naan sam-sam ba ñu defee seen installé seen installation bi ba pare ubbi robinet yi benn xel lihut ndekee ka nangu woon a dal fi dalaloon nanguwut faa buuse meetar moom tamit ba mu waxee sam-sam ne ko dalal sam-sam tamit nangu naa dal foofa nanguwut a buuse meetar ne xéewal la ñëw leen fekk si ma même doo fekk kenn kon jigéen tabaarakallaahu bu nangoo dëju fi ko borom këram dëj wallahi nit ñee koy wër di huti ci moom de mais du huti dara du huti dara ku ko soxla yaa koy seet si ku ko soxla yaa koy fekk si mais moom du seet dootul soxlaati kenn ci dara kon nag loola li ko mën a maye mooy nangoo dëju fi la sa borom kër dëj su boobaa yàlla dëjal la fa doom ju barke yàlla dëjal la fa xéewal waaye ba mu fa nangoo dëju tey yàlla dëjal na ko fa kaaba ga te doomam ji ak borom këram ñoo yëkkati fondation ba ci wa id yarfaa ibrahimul qawaida min al bayti wa ismailu gis nga ko waaye yàlla dëjal na ko fa doom joo xam ne fu ñu tuddee baayam tudd ko waaye waxatuma sax fu ñu ko tuddee tudd sëtam bu tedd bi nga xam ne mooy sayidul anbiyaay wal mursalin di sayiduna muhammad salallahu alayhi wa sallam muy muy ismaila na du ko waral nangoo dëju fi ko borom këram dëj ba mu ko nangoo ba mu dëju yàlla dëgal na ko fa dëkk bi nga xam ne mooy mooy nday dëkk yépp ñu koy tuddee ummul qura ummul qura nga xam ne première jàkka ji njëkk a fondement ci kaw suuf foofu lañ ko def muy inna awala baytin wudia linnaasi lalladi bi bakkata mubarakan wa hudan lil kon loola lépp dëkk bu day noonu fekk la fa te yow yaa ko sanci di jigéen màkka li muy rëy rëy jigéen a ko sanci waaye gis nga ko ba mu fa fa nangoo dëggu tey mu gën a tudda tut ko waaye tey fu mu nii ummul quraa la gis nga ko yàlla dëggal ko fa doom ju tedd ju tol ni ismaa ismaila ba dëggalaale ko fa sët bu toll ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dëggal ko fa xéewal bu day nii samsam moo tax jigéen goo xam ne fa la sa borom kër dëj nangu nga faa dëju doo yenu ndabal fay doo ko tàccu doo ko gaaruwaale doo ko xas doo tàngal xolam dara jombut la ci xéewal xéewal goo am rek wallahi man ngaa am gu ko ëpp kon yéen jigéen ñi bala ngeen fee nekk yi lakkal nit ñi ci seen lakk jëkkër yi na fekk bu leen lakkal seen borom kër yi waaye bu ngeen nekkee ci deen lakkar rek bokk leen ci tabaski bi wallahi donte yéen nga lekk ci yàpp wa sax bokku leen ci waaye yéen doom yi bala ngeen a mën a bokk ci tabaski bi na fekk ngeen nangul seen baay nangul gu day ni bu seen baay soxlaa seen bakkan sax ngeen jox ko ko bu seen baay soxlaa seen rooxu ngeen jox ko ko bu seen baay santee leen ngeen nangoo dem di liggéeyi lu ngeen am jox ko seen baay bul fa nekk di tudd di déglu sa yaay joo xam ne boo ko dégloo mu tardé la naan sa papa ji boo ko toppee doo am dara ndax su fekkee ne loo am jox ko doo am dara te ku sa bàyyi di teree am dara waroo am dara sax yow ndaxi koo xam ne ba nga juddoo mënoo lu dul lekk lu paa bi mos a am lekk nga ko nga dem a dem ba paa bi mëntu lu dul lekk nga ne li nga xam paa bi du ko lekk wallahi bu ko lekkul nga dee bàyyi ko fi far forsu sa bàyyi ji doon nu alal ja lekk ko doo ca man dara kon nag yéen doom yi na ngeen nangu téef ki seen bàyyi ni ko yonentu yàlla Ismaayila nangoo xoon ci yaa abati faal ma tu'maru sa tëjudu nii insha allahu min assabirin waaye tool nañ jamono joo xam ne euh, doom yu bari wan naa ci yàlla seen bàyyi amatuñ ci ñoom kàddu dem nañ ba seeni soxna yi kàddu giñ am ci ñoom seen bàyyi amuñ ko ci ñoom dem nañ ba seeni goro yi ñi leen may jabar kàddu giñ am ci ñoom seen bàyyi ak seen yaay yi amuñ ko ci ñoom xam nga dara gënul metti nga ëmb sa doom juróom-ñeenti weer tabaarakallaahu nekkatul nu la neex ngay toogee nekkatul nu la neex ngay tëddee nekkatul yére yu la neex ngay sañsee dem ba bis bi nga koy matu sa bakkan nar caa des diirëb li nga ko ëmb bëri na lekk yoo bëggoon tere nañ la ko xeñ la ko ngir sa doom ji mu dem ba juddu nga foone sa coono jeex na nga koy nàmpal mu lay géex am nañu ca jaaree jële ca cancer de sein am na nañu ca jaaree ñu xotti seen ween wi am nañu ca jaaree seen ween yéen néwi nga nekk ca mu yàq boppam nga yàq say nelaw sonn dema dem ba mu nekk mag tabaarakallaahu gàddu njariñ war laa mën a jariñ jigéen nangu ko ci yow mën naa am soxnaam la wala ay goroom nangu ko ci yow wala sëriñëb àdduna nangu ko ci yow mu nangul leen lum la nangulul jooja doom bu guddee fan àdduna yar ko bu gàttee fan bàmmeel yar ko kenn mënu ci dara ndax fi yaay ànd ak moom ak baay dafa sori te jamono jii kat sëriñ yu bari nangu nañ doomi jàmbur yi ci seeni waajur yi tàggat leen ñu leen defal loo xam ne duñ ko defal seeni waajur ñu waaye tamit goro yu bëri nangu nañ doomi jàmbur yi ci seen yaay yeeg seen baay yi soxna yu bëri nangu nañ tabaarakallaahu euh, doomi jàmbur yi ci seeni baay ak seeni yaay tàggat leen ñu leen di defal loo xam ne duñ ko defal seen waajur yi da gis koo xam ne sax bu gorom feebaree mu ne sama goroo feebar dama ko bëgg a yóbbu Amérique wala yóbbu ko Italie wala France dem faje ji ko te waat naa ci yàlla bàyyi ma ko gën a feebar ak yaayam waaye nanguwut koo yóbbu moo tax la yonent bi waxoon rek billaahi maa ngi dem waaye tey jigéen ñi rey leen de wax na ko de bàyyiwuma sama gannaaw fitna bu gën a rëy jigéen ñi ci góor ñi maa ngi dem waaye tey góor ñi tey jigéen ñi rey leen de wax na ko de kon nag bàyyiwuma maa taraktu fitnatan adarra ala rijaali min an nisaa yi loolu la yonent bi waxoon de bàyyiwuma fitna bu gën a lor ci góor ñi ci jigéen ñi waaye yonent bi dem na waaye góor ñi waat naa ci yàlla leen jigéen ñi wan mburu sax maanaam fuur bi wanut ko ko bari na ñu torox ñoo xam ne jigéen na leen toroxal bari na ku dem kaso boo toppee tànk yi jigéen na ko fa yóbbu bëri na ku nekkoon milliardaire xëy tay di saraxu boo ko joxul ñaar téeméer du am dépense jigéen na ko ko teg bëri na ko amoon sutura tey suturaal sutura ñëpp naw ko mu bokk ci notable quartier bi tey bokk na ki ñu gën a torox ci quartier bi boo toppee tànk ya jigéen a ko ko yóbbu kon dëgg-dëgg yooyu yëpp ku mel noona di doom bokkoo ci feetu tabaski gi doonte yaa ngi bëgg rey nit ñeeg ci sa lakkalu papa ji yaa ngi cay sonn di lakk te bu la sa papa waxee doo def bu la teree doo bàyyi amaluloo ko benn njariñ boo xëyee doo ko nuyu xamul ci yow dara sa morom yi ngay ànd ak liñ xam ci yow man ko ci yow sax sa waajur wii indi la fi di sa bàyyi ak sa yaay mun ko ci yow te loolu tey feebar la boo xam ne tey bokk na ci crise bi gën a yaatu ci àdduna bi mooy ñàkk kilifa ñàkk kilifa ñàkk kilifa dafa bari koo wax muy tiitaru naan man mi daal nen laa ganaar ak kenn boofu ma ma ne ah nen de bu bañee ganaar boof ko moom ci omelette rek lay mujj omelette nag foo ko dégg yuuxu ya dana bëri buñ boolee dawlin ba ba mu sens ñu sotti ko ca foo tollu yaa ngi dégg coow la moo tax ku ci bañ ku la xilif bis boo duggee ci giraawaay bi rek nangoo xam kilifa boole ko xulli sa bët yi ni mukk nag ba problème ba doon a réglé looy door a def door di ko defi kon nag nañ ci bàyyi xel bu baax a baax tabaski gaangoog di iidul adhal mubarak di feetu jullit ñi ci aj waaye di feet boo xam ne feetu victoire la bu màgg a màgg a màgg victoire la ci lislaam victoire la ci jullit ñi victoire bu mag la tamit ci doomu aadama yi waaye nag victoire ba ñett ñii rekk ñoo ko am mooy boroom kër gu déggal boromam waaye soxna su déggal boroom këram ak doom ju déggal waajuram ñett ñi boo dàqee léppi tabaski ci ñoom rekk lay dellu ñett ñii tamit lañ bëgg ñi feetu feetu tabaski gi waaye ñett ñi ku ci xamut melokaanoo ñett yi yaa rey sa bopp ci tabaski gi waaye bokkoo ca tabaski gi nag tabaarakallaahu Euh, euh, liñ ciy jaamoo yàlla yonentu bi nee na doomu aadama defut ci lu gën a màgg tuur deret jaamoo ko yàlla maa amila ibnu aadama amalan ahabba ilallahi min iraqati dammi nga def ko nag ci yawma nahri kon bisab loj bi nga tuural yàlla deret gannaaw bi nga xamee ne yëg nga ne am nga am tabaski tabaarakallaahu nga def ko amul lu ko hëpp yool yàlla nag comme ku mat la ku màgg la ku sell la wallahi deret dañ koy tuural di ko jaamoo lu war a mag lu war a màgg lay doon moo tax xar mi dafa rëy borom 3 millions la ko jëndee jërut xéem ki ñuy defal xëpp na loola yàlla dafa màgg kon boo koy jaamoo jaamoo ko lu màgg la ca am solo rek bu ci gunge bakkan di tiitaru waaye kay xar boo jëndee 3 millions mbaa 4 millions mbaa 5 millions ne ma koy tabaskee bu yàlla taxee tuuti na bu yàlla taxut nag rëy na bëri na ba xëpp waaw waaye bu yàlla taxee kay loolu tuutee tuuti la ndax ku màgg kii sant ñu lu màgg lii wallahi mënuñoo mënuñoo def lu màgg lu toll ni moom te gis nga yonent yàlla ibrahima moom ko waxoon lu mu wax wa faddaynaahu bi zibhin azimin moo tax tamit yàlla lim nekk di ko mat moo tax mu bëgg boo koy jaamoo yàlla ci gàtt bi mu sant la nga def ko muy gàtt bu mat bul andi gàtt bu patt bul indi gàtt bu muuma bul indi gàtt boo xam ne béjjën ba dafa damm di nàcc Euh, bul indi gàtt boo xam ne dafa dafa ragg kaw karaw kawar yaa nga siiñ bul indi gàtt bu fiiw lépp luy xeeti ayib buy tax tabaski manki rek yàlla la koy dàqal ci njàngaleem yonantu bi nga bañ koo def sallallahu alayhi wa sallam ki sa gàtt bi ndax ki nga koy defal ku mat la kon andi jaamoo ko yàlla jaamoo ko lu mat waaye tamit ki nga koy defal ku sell la fexeel ba gàtt boobu ngay reen di di ko jaamoo yàlla bu ci alali jàmbur nekk alal joo xam ne nga koo sàcc lii nga tappale ko lii nga luubal ko lii ñi ràng la ko nga dem def ko ca tabaski ma taxul nga am tabaski ndax inna allaha xaalisun laa yaqbalu illa xaalisan yàlla nag gis nga tabaski bi mu bëgg ñu feetoo ko ci xar ren di am xar mbooleem juri kër yi xara ci gën a yàgg ak doomu aadama xar moo gàttandu doom aadama xar moo dalal doom aadama xar bu ëllëgee doomu aadama tamit bu demee ba jël loos maam xara koy gunge moo tax ñi bëgg nga feetoo feet gi ci reen di am xar naka la xar dalalee doomu aadama yonentu yàlla aadama bi mu ñëwee ñaari doomam yi mu njëkk a am yàlla dogal seytaane man leen ñi xëccoo ci jigéen ci diggante Qaabil ak Haabil mu sant leen dem leen ngeen jaamu yàlla kenn ku ci nekk lu ko xolam may xaa maanaam Qaabil dem moom jaamoo yàlla dugub ju bon ab baykat la woon moom Haabil moom sàmmkat la woon ca caawa ga la ne mu dem jaamoo yàlla ci xar mu mag a mag a mag a mag waaye gis nga ko foofa ka jaamoo woon xar la yàlla nangul waaye ka jaamoo woon dugub ja nanguwut ko fa tuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al axiri qaala la aqtulannaka qaala innama yataqabbalu llahu min al muttaqina kon foofa la xar ànd ak nit far ànd ak nit nga juddu yow nit ki sa bis bi nga juddu dellu si ñu ne nañ wut gàtta euh, xar tabaarakallaahu am xar tuddee ko ko ñi rendi ko ca bis ba ba mu dellu see Malick ne boo ko amut aj ko ba mu dellu siwaat tombeek fukki fan ak ñeent Malick ne boo ko amaatut aj ko ba mu dellu siwaat di ñaar fukki fan ak benn soo ko amul nag tuddal nga bàyyi bu xale bi màggee lu mu njëkk a am mu jënd am xar rendil ko boppam jublu ci ca ngénteel nga ndax nabi nee na sallallahu alayhi wa sallam kuñ jur ku ne dañ koo tay la ci gàttal ngénteem ba rendi ko ngeen koy rendil xar ak deret ja di tuuru dana ko fanqal tolof-tolof yu bëri yu ko naroon a gaar ci dundam gi li kon xara dalal doomu aadama bi mu juddoo moo tax gàtt yaa ngi fi woon bëri lool mais bi yonent bi ganesee àdduna sallallahu alayhi wasallam bis ba dellu si Abdul Mutalib xar la ko rendi loolu la maam Khalifa Niass wax ci miraatu safa waaye mu ne tamit doomam yëpp di juróom-ñaari bantam yi gëlëm a ngi fi woon naga ngi fi bëy a ngi fi waaye ñoom ñëpp xar la leen rendil sëtam yi sax xataa ba ci xasan ak xuseyn ak muhasin ñooña ñëpp xar la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rendil ba daana dem ne fu sa loxo jot sa gannaaw buy doom ju góor boo ko mënee rendil ñaari xar bu dee doom ju jigéen nga rendi mel ni xar kon ba tax na tey suñ langage fii ci olof da ngay dégg ñu ne ana xaram tudd mi waaye mosoo dégg na ana nagu tudd wi kon xar yàgg na ak nit xaram xaram tudd mi ngay dégg de su ko defee kon gis nga xar foofu la ànd ak moom ba tabaski jotee tamit yonentu yàlla Ibrahim naroon a tabaskee doomam ja gëléem a nga fa woon moo gën a rëy nag a nga fa woon moo gën a rëy waaye yàlla dafa ne wa faddaynaahu bi dhibhin azimin loola xar la woon kon gis nga moo tax xar ñëw nga koy tabaskee mu nekk taxaw euh, première euh, moo taxaw ci rang bi moo nekk première bay doo a jël deuxième nag door a jël troisième na ak gëléem door a jël quatrième lu ko waral lu tax maanaam euh, bay jël deuxième bay moo gën a niru xar ci nag moo tax mu jël deuxième moo gisee nag jël troisième nag a gën a niru gëléem ci xar moo tax mu jël troisième boo gisee maanaam euh, gëléem jël quatrième nga xam ne moo jël ndaare moo gën a niru hëdi ci xeeti juri kër yëpp xar moo ci gën a niru hëdi xar ci mboolem juri kër yi moo tax moom mu nekk ca gannaaw moom dafa bokkul ci bokkul ci bokkul ci maanaam concours bi bu doon léegi ñu ne quatrième la jël kon xarangoog yàgg ak moom waaye gis nga xar moomu àndoon nag yow ci sa tuddab ngénte bi xar noonu àndoon ak haabil ca jaamoom ga xar noonu ànd ak yow ca tabaski ba mooy continuer ànd ak yow ba nga jël sa loosuma ci jana boo lëggee buñ jëlee suñ loosuma ci aljana waa safara jël seen loosuma ci safara yàlla na yàlla musal ñu ci yàlla dana xoolu malaaka mu ne ko yee malaaka mi xooxal waaxal jana mu ne ñu xëye yéen waaxal jana ñu ne ko labayka wa sax saxdayka mu ne sama borom nee na dundu leen ci xéewal ci teraanga dootu leen deexati xëye yéen waa safara ñu huyu ko mu ne leen dundu leen ci naqar ak ci coono dootu leen deexati dee mi doon raye mi ngi nii ñi melal ko meloom am xar ren ko ci diggante aljana ak safara kon gis nga bu ñu duggee suñ logement sax balaa dee mooma buy dee sax ci meloo xar lay doon ñi ren ko comme dañ la ko ren loon ca ngénte ga rendi la loon ko ci tabaski ba noonu lañ koy rendi ci diggante aljaan ak safara ne kon nag dootu leen deexati yéen ñi nekk ci naqar dootu leen deexati yéen ñi nekk ci bànneex summa laa yemutu fiha wala yaxyaa ca gaa yooya nekk ca safara sax kon gis nga xar moo la gunge ba nga jël sa logement ci biir aljana te xar mooma tamit benn la waaye dafa liggéey ñetti mission xaru Haabil mooma mu jaamoo yàlla bay taxoon mu mën a gañe ndaw sa la yàlla jëlaat ba yonent yàlla Ibrahima bi yàlla namee mu njot doomam ji ca xar mooma lañ wàcceewaat ñu njotee ko ko ci wa faddaynaahu bi zibin azimin xar mooma timit njot Ismaila tabaarakallaahu moom la yàlla dencaat ba bu yowmal bu ñu duggee aljaana waa safara dugg safara xar mooma la ñuy jëlaat timit nataal ko rendi ko ci diggan ci ak safara kon benn la waaye du lenn ndax liggéey na ñetti mission liggéey na mission wu Habil ba liggéey mission wu Ibrahima ba liggéey mission bu mujj nag mooy ci diggante aljaan ak safara biñ koy rendi foofa nag su ko defee nag summa laa yemutu fiiha wala yaxya door a taxaw nag ci kanam waa aljana taxaw tamit ci kanam waa safara kon xar dafa yàgg ak nit moo tax sa feet gii ñu bëgg nga feetoo ko ci xar te boo jëloon xar yaaram yi ñu ngi ko tuddee dë'nu dë'nu boo ko xisaabee dafa lay jox cent trente huit cent trente neuf kon la lay jox cent trente neuf li mu cent trente neuf nag ñu xam xisaab xam na li lim taxawee secret bu rëy rëy la taxawee muy téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent boo jëlee dënnu loolu la lay jox ndax boo jëlee daar gi juróom-ñeent fukk la muy quatre vingt dix xam sa googu benn la nuun gi cinquante la boo leen boolee yëpp nga boolee ko mu jox la cent trent neuf moo taxaw taxawaayu xar kooku boo ko jëlee ci maasu dafa al ibilu du ko mat boo ko jëlee tamit tabaarakallaahu ci baqaru dafa koy ëpp ndax baqaru rek dafay nekk tabaarakallaahu trois cent deux la lay jox kon euh, xar chiffre bi mu taxawee chiffre bu ama am doole la ci ñi seen xam-xam màcc ci wàllu euh, lasraar moo tax yàlla jël xar mu nekk mu ñuy gunge ci suñ feet gi ñu mën ko feetoo ci feet gu màgg gi waaye feet gi nag neex na lool ci jëmm yi waaye am naqar wu métti tabaarakallaahu ci xol yi mooy troisième vague bii nga xam ne ñi ngi koy dund corona bi yegg foo xam ne tey bi mu fi commencé ci réew mi ba léegi kaa yi ñii am musuñ koo am kon corona boobu nag fekk na fi corona yu bëri fekk na fi corona wu soxor te médecin mënu ci dara fekk na fi korona wu mbañeel dékki-jékki bañ nit ki rek ni ko yàlla melal moo la neexut te mënu médecin mënul ci dara fekk na fi tamit corona wu ñàkk wax dëgg ci ku la gën a rëy daraja dàq laa ci fekk na fi tamit corona wu sàcc alali jàmbur yi te yooyu ñeenti corona ñoo gën a garaaw téeméeri junne yoon troisième vague bi ñiy coow kenn ku nekk di ko wax waaye tamit di corona boo xam ne li ci diine perte ak ñooñ diine ala kulli haal kenn pertut ko ci wallahi diine perte na ci ñu tëj ay jàkkaam diine perte na ci ñi tëj ay jumaam diine perte na ci ñi tëj ay daaraam diine perte na ci ñi tëj tey kaaba gi daaw ajuñu gis nga ko ren timit tabaarakallaahu ñu ngi nii ajuñu ñu ne juróom benn fukki junney nit ñoo aj te ñoom ñëpp màkka lañ nekk te xam nga yàlla waxoon wa adin fi naasi bil xaj fi naasi la waxoon di ñoo ngi dañoo bëri di ne ñëpp dugg eh, lan lam ca teg sax moo la koy xamal eh, bil hajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatina min kulli fajjin amiqin kon bu ñu demee ba ne màkk rek ña fa dëkk ñooy aj loola àdduna bu tukki la bu xam ne kenn xamut fu jëm yàlla yàlla defal ñu tawfiix defal ñu siir maa ngi ndokkeelaat jullit ñi rawatina ilimaan yi nga xam ne ñoo taxaw ci kanam seeni maam moom jooxe xutba yi te lépp ñu actualité ko maa ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci bis bi waaye di ndokkeel xulafaaw yëpp ñi ci réew mi di suñuy bàyyi leer yu donn suñu maami leer yi ñoom ñëpp maa ngi leen di ndokkeel tabaarakallaahu waaye tamit maa ngi ndokkeel mbooleem ulamaaw yi borom xam yi maa ngi ndokkeel mbooleem duaat yi ñi nga xam ne ñi ngi xoote jëmee ci diine yàlla ji te wa man ahsanu qawlan mimman daa ilallaahi wa amila saalihan jooge ña ngi koy dund